asalaamaaleykum mbokk Sénégal maa ngi wax ak yéen tey jii fii ci palais de la république ginnaaw ndaje bu ama am solo bu ma am lu toll ci presque juróomi waxtu ak lu topp ma am ko ak ñi nga xam ne ñooy kàngam yi ngànk wàllu wér-gu-yaram ko docteur jëm ci mbas mi ñu doon xoolaat tolluwaay yi ak fi réew mi toll tey ci feebar bi ginnaaw bu ma santé ñoom waa kër docteur jiital ci ministre bi nga xam ne moo yor wàllu paj mi ministre de la santé de l'action sociale moom ak collaborateur am yëpp ci taxawaay bi ñu am fukki weer ak léegi ñu ngi taxaw guddi ak bëccëg ngir di taxawu askan wi ñu war leen sant bu baax ci taxawaay boobu ñu demoon nag xeex mbas mi ba daanaka mu meloon ni luy jeex ci weer wi yële ñu génn bi ñu ñëw bi mois de novembre ñaari weer ci ginnaaw mbir mi jógaat jógaat na nag jóg bu jéggi dayoo boo xam ne buñ ci gaawul taxaw dana indi ay musiba am na luñ ci tàmbali gis si ni feebar bi lawe ak ni nga xamante ne noonu la cas grave yi am ci service sauvetage yi ak nit ñi si ñàkk seen bakkan ni mu mel loolu nag nekk na loo xam ne boo ko gisee te taxawoo si taxawaay bi war dinañ dem bu mu dépassé ñu te musiba boobu muy indi ñaanuñu yàlla mu ñëw senegal ndax xejul si ñun loolu waral tey jii waxtaan bi am solo ma déglu bu baax a baax kàngam yi ci lépp li nga xam ne war nañ ko taxawaat taxawaay bu bees ndax demoon nañu ba am ay résultat ñu bàyyi ndeku ñëpp jàpp na feebar bi jeex na kenn takkatul masque xew yi suba ngoon ñu ngi xew si biir kër yi ak ci biti ba tax na euh, gis nañu tey ji fii mbir mi toll nit ñi faatu bari nañu ñu nga xam ne feebar nañu gis nañ ne ñu si bare bare bare cas yu grave yi daf ci bari lool ba Sowétas daanaka fépp dafa fees ñu bari soxla nuñ leen di jàppale pour ñu mën a noyyi loolu nag li ci tegu mooy ay faatu yu bari te ginnaaw yàlla def na ba tey jii ah, naam ñu ngi laamisoo wàllu ñàq bi nga xam ne buñ ko defee xëy na mun na indi ab tan waaye fii ak ñàkk boobu di ñëw faw ñu continuer di taxaw taxawaay ñu waroon taxaw mooy lan mooy di moytu dajeloo ak sëmbaxloo moytu bañ a joxe loxo yi ndax feebar bi ci loxo yi lay jaar di takk masque yi ñu wax te di dàndandoo loolu rek mooy li nga xam ne moo ñu si mën a génne ginnaaw xam nañ ko nag ma ci gërëm kilifa diine yi nga xam ne yëkkati nañ ci seen i kàddu bàyyiwuñu si di joxe ndigal kooku gis nañ ko ci senegal ma leen ci sant bu baax a baax ñenn ñi boobu ba léegi daje yu bari yi defuñu ko ndax dañ koy def ngir jàmm askan bi ak wér-gu-yaramu askan bi ma leen di sant bu baax ci loolu ñi si desit joxe ay ndigal ngir nit ñi bàyyi seen xel su ne feebar bi mu ngi fi di law ba tey lii nag moo tax ginnaaw bi ma dégloo docteur yi ak euh, ñu wax mu li xew dëgg-dëgg ci hôpitaux yi ak ñoom seen ragal bu ñu ragal ne bu ñu taxawul li war si weeru janvier bii déjà lu raw li ñu génn décembre danañ ko gis te loolu kanam la jëm buñ ci taxawul taxawaay yi wax loolu tax ma ne dinaa wax ak yéen woote waat askan bi yëpp xamal leen ni waxtu bi ñu toll waxtu bu doy waar la waxtu bu garaaw la ndax bu ñu jëlul ay matukaay yi ñu war a jël a nettali bi du du gën loolu tax nag ma ne bi bi ñu gisee feebar bi ni mu lawee rawatina si région wu Ndakaaru muy capitale bi ak région de Thiès ñoom ñaari gox yooyu boo leen boole téeméer boo jël si ñu feebar ci réew mi juróom-ñeent fukk yi daanaka foofu lañu nekk kon ñaari région yooyu dinaa jël état d'urgence à partir de ëllëg boo xam ne dana indi ay restriction maanaam danañ wàññi dem bi ak dikk bi te dinañ def couvre-feu si dëkk yooyu le muy région de Dakar région de Thiès lu ko dalee juróom-ñeenti waxtu si guddi ba juróomi waxtu ci fajar loolu nag euh, maa ngi wax ministre yëpp ku ci la nga war a def ak la nga war a dogal na nga jël say matuwaay ba ci gouverneur yi nga xam ne ñoo yilif région yooyu ak préfet yi nekk ci gox yooyu lii nag du tere yeneen i matukaay daañu ko jël ci wàllu euh, déplacement su loolu yëpp dinañ ko gën a mottali fii ak ëllëg euh, ba xool daal nu ñuy def ba nit ñi mën a jëfe euh, ndigal yi nga xam ne jox nañ leen ko te ñu koy def rek ngir wér-gu-yaramu askan wi yenn ndaje yu bëri dinañ ko dindi ndax euh, mën a atteindre objectif boobu ñu wax li ci des mooy ñu santat rek euh, population yi sant itam ñu nga xam ne ñoo ñuy jàppale ci xeex bi ginnaaw waa kër docteur force de défense et de sécurité yi nga xam ne bu ñu xësee wax état d'urgence ñoom daanaka dañuy daal di taxaw guddi ak bëccëg même tenue yi ñuy sol à partir de ëllëg dañ koy dindi sol tenue de combat parce que si combat la ñu nekk guddeeg bëccëg kon loolu itam dafay laaj population bi jàppale ñu ci décision yooyu rawatina ndaw ñi pour ñu doxee ndigal yi ñu wax loolu yëpp dañ koy def ngir wér-gu-yaramu askan wi dinañ ubbiwaat centre de traitement yëpp yu nekkoon ci Sénégal ndax mbir mi law na euh, même service yu bees yi ñu inauguré fan yi danañ ko ubbiwaat xëy na mars lañ waxoon waaye xëy na nañ wax professeur yi ñu gën koo baral ba nga xamante ni euh, malade yi danañ am fu ñu di yóbbu waaye itam ñi nekk si biir kër yi bu ñu tawatee bu ñu la si biir toog ba musiba di am ndax docteur yi jooy nañu le fait ñu bare dañuy toog ba bu ñu leen di indi day fekk daanaka kenn mënatu si def dara nit ñi dañuy yàgg foofu rek ngir faatu kon fii ñu toll adduna bi Covid bi. muy mbas mi war na ko kon ku sa yaram sutante tuuti rek war nga woote ngir ñu saytu ko balaa ñuy toog ba doomu jàngoro ji di jur ay musiba yoo xam ne euh, dina indi jafe-jafe maa ngi woote waat ñi nga xam ne ñooy élus yi muy maire yi rawatina ñoom ak président de département ñoom itam ci seeni gox ku si ne rawatina ci commune yi ak société civile bi nekk si gox bi presse bi homme de lettres et de culture ñëpp ñi nga xam ne ay leader lañu d'opinion ñu dugal seen loxo ci waxtaan ak askan wi ngir ñu aar suñu bopp aar suñu njaboot aar suñu réew ba jàngoro ji ñu mën ko daan muy daan corona li des nag mooy wàllu ñàkk bi aussi waxtaan nañ ci bu baax a baax donte Sénégal mu ngi liggéey ak organisation mondiale de la santé bi liggéey ak kuréel bi ñuy wax Gavi danañu jël suñuy matukaayu bopp yoo xam ne ñii di waa kër docteur déjà ñoom ñi nga xam ne it ñoom la feebar bi di gën a wàll ndax ñoom ñooy laal maladie ñoo leen di faj suba ngoon guddeeg bëccëg ñooñu ak ñi nga xam ne ay mag lañu te am yenn at yi nga xam ne du xej ci ñoom catégorie boobu ñu wutal leen ping ngir ñooñu moom ñu ñu mën a continuer liggéey bi ñu def su ko defee nag fu ñu toll rek ñu nag waa organisation mondial la santé ak yeneen dëkk Afrique yi ñu mën a continuer xool nu ñuy amee vaccin bi te it may ñaan ñi nga xam ne dañuy waxtu yàq surtout si li jëm si vaccin bi nañu ko bàyyi parce que bés bu ñu amulee ñàkk bi musiba rek mooy mooy am ci réew mi waaw kon loo xam ne la mënul ñàkk ni ñàkkee gone yi tey jii si fukki feebar ak benn ak ñeent ci programme élargi de vaccination loolu bu amuloon tey kon poliomyélite xureet ak xeetu feebar yooyu yëpp tey day nekk ci biir askan wi kon wax ne feebaru covid bi muy mbas mi suñ ko ñàkkee dana indi lii dana dofloo nit ñi loolu ay waxu caaxaan nañu nañu farlu en tout cas ñun ñu ngi liggéey ak borom xam-xam yi ci wàllu woowu euh, lu mu jar aussi Sénégal dana si def ay moyens ngir phase bu njëkk bi ñu mënal ko jëndul suñu bopp aar suñu réew maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla mu taxawu Sénégal suturaal ñu taxawu àdduna bi yëpp ci feebar bi